da ngeen di xaw a mel ni waaw waaw kay xaw a mel ni ñu ràññee tuuti rek xaw leen a xaw a yokk tuuti defal nii ñëwul nii ñëwul ci kii dikkal nii duggal ci diggante bi yokkul yokkul ci ginnaaw tuuti dama bëgg ñëpp man leen a gis bu leen làq jigéen ñi jigéen ñee tax baas bee taaru de ñëwal nii yokkal tuuti sëñ bi yokkal tuuti sëñ bi def leen lu mel ni cercle moytul kooku waaw da ngeen xaw a tuuti rek sëñ Modou neel diis nii ñëw xam ngeen a làq ñee de xam ngeen a làq ñee tuuti waaw taxawal ci kanamu kii rek acca aw kay ana ñeneen ñi ci des ñëpp ngi ni maa ngi tuub bu ko defee kon sëñ Mbaye Diaw da ngay jóg taxaw sëñ Malick bismillah lii la ilaha illallah sëñ moor xoole yëkkati ko ca kaw taxawal taxawal yow bul déplacé taxawal yëkkati ko ca kaw na jóg na jóg waaw gis ngeen yéen ñëpp wëlbatil waaw kay wëlbatil ba wan na ginnaaw na ko ñëpp gis man de yàlla lañ ma defal bis bu mel nii Ah, waaw sëñ Alsaan jëlal nu lépp ana sëñ Xaadim na ko gis ah, waaw yéen ñoo ni si ginnaaw xool leen ko bu baax ndax lii kat royukaay la dana tax boo lëggee demal ba ci demal ma ci ba ci waa Daaru Njaay ñooñu ñoom nañ ñu ko jàkk kay nañ ko gis bu baax lépp ñaan gu naan gu nangu la rek ok ana Amadou yaa ngi ñi nga àndal ana Khady waaye yéen te ngeen a jóg taxaw jóg leen taxaw yéen ñooñu jóg leen taxaw yéen ñii bu leen ma rusloo waaye yéen it taxaw ah bàjjan de moom naa ñëw moom jóg leen taxaw isaan jërëjëf soxna Xadi ah, am de moom neex dégg waaw bu na na na leen roy de na leen roy sëñ Malick kaay bul demagun moom daa neex loolu kuñ koy jox moom da daal di xaw a jàndax sëñ Xaadim Diop anamu nañ ma ko wool incha allah jaara ana soppay mbay jaw ana soppay mbay jaw ana soppay mbay jaw ana soppay mbay jaw ahmadu bamba mooy borom magal gi foofo de tuuba le yaaya mu ngi tuddu maam jaara buuso papa mu ngi tuddu maamoor anta sali moo demoon gaabo mu jaar mayomba ñëw tubloo jinne yi ñëw sanse tuuba ana soppay mbay jaw ana soppay mbay jaw अन सबै मैजाऊ अन सबै मैजाऊ अनुवाद कवि अनुवाद कवि अनुवा मैजाऊ अन सबै मैजाऊ हम गति वावन मामोद मोवन ayafan maaki ji daara ok jërëjëf tubaarkàlla loolu mënu ci woon a ñàkk sëñ Mbaye da ngay ni yow sa bis moo demee noonu maanaam moom fa nga bëgg mu yem fa nga bëgg mu tàmbalee fa du fa tàmbalee waaye fa nga bëgg mu yem fa it du fa mën a yem moom baye boon nga degg dégg rek te bàyyi ma kii bi ma doxal ndax yëf yee demee noonu sëriñ bi waaw kay bokk yi sëriñ moo daaw bàlle mii ah li lii rek tax li am sëriñ moo daaw bàlle nga xam ni moo tiim lii te leer na mën a xalaat bii digganteem ak njënd mi ak ñi taxaw ñëpp xalaat bii xalaat nii man de maa ngi ñaan yàlla am bu ni mel. léegi nag bu ma guddalee xam naa ni gars yi danañu fekk fii ma taxaw dama lay jox kàddu gi nga wax nu nag lu waral lii sëñ Modou nga wax de bismillah. mbooloo mi sëriñ Modou moo leen di nuyu. ne nu ngi leen di siyaare di leen delloo siyaar bu baax di leen ndokkeel ba baax ci bis bu sell bii di sant waa dëkk bi ak li ko war yëpp ne taxawaay bi nañ ko taxawoo rafet na torop noo ngi sant bu baax Serigne Mbaye Diaw ginnaaw yàlla bu ñuy durus xasida yi Serigne Mbaye Diaw a tax ne bi ñu jógee ci daara ji ci ginnaawam la ñu topp. waaw yàlla dogal liggéey bi tënkuñu rek. li yàlla dogal liggéey bi tënkuñu rek. ñu xaw ñoo sori rek waaye. ñu xaw a sori rek waaye. sunu xel ak sunu xalaat yëpp mi ngi ci daara ji. noo ko ñaanal bis bii daal. fu mu bëgg a egg yal na ko sunu borom eggale. ci barkeb Seexul Xadiim. barkeb xasida yi. ne képp ku fi teew ren daal. yal na nga fi teewaat déwén. nee ànd ak yokkute bu baax a baax nag ci barke Seexul Xadim barkeb xasida yi Serigne Mbaye day daa bëgg xasida yi ba nga xam ni am na ci cofeel goo xam ni nee moom mii sëñ Mbaye Diaw la ciy topp wax dëgg yàlla nee yéen a jëm ci am nee kawe na sunu njort. nee noo ngi koy ñaanal daal li bëgg ci xasida sëñ Tuubaa suñ borom defal ko ko. njabootam gépp. ak njabootam gépp. dund ba ay njabootam di ko di ko taxawee nii. ni dund ba ay njabootam di ko taxawoo nii. mu waa dëkk bi yëpp. mu ànd ko njabootu waa dëkk bi yëpp. ak njabootu famille bi yëpp. ak njabootu famille bi yëpp. ak njabootu ci ndaw gépp. ak ci ndaw gépp. sant nañ ñëpp. sant nañu ñëpp. jërë ngeen jëf ko defee ah sëñ sëñ Malick kaddu bii yaa ko doon joxe xam naa du ñàkk nag. nga sànni ci ay kàddu yow sant xale yi tax bu leen dem bu leen déplacé wu. waaw sëriñ Samba noo lay nuyu di jégalu nag ji ñi nu àndal xam naa ne tey bari na waaye dañuy sant xale yi lool ak seen digganteeg Mbaye Diaw ndax ba ni xale ba léegi ñooy ànd que kenn musu leen a àtteeg ñoom dañuy kaf di ree di ànd di jàng xasida di saafante ba yàlla dogal tey bis bi ñu taxaw ko def lu rëy lii lu kawe njortu lii ah ñun ñu xeebu ñi nga xam ne si bàyyi koo Masar nu jox na lu toll nii ñu koy jébbal sëriñ Bay mhm. ñu moom am na mbégte bu baax a baax di leen ñaanal bu nee mhm. lépp lu ngeen man ren bu nee yàlla ngeen mën lu ko ëpp mhm. ci barke sëriñ Touba jërë ngeen jëf ok jërëjëf Baye Malick kaddu yaa ngoog waaw mbokk yi sëñ Mbay moo leen di nuyu nu dégloo tuuti waaw dañuy jox sëñ Mbay nag ah ndax yaakaar naa ni man mii di wax ba ba léegi maa ngi ngal-ngali di wax waaye nag yaakaar naa ni kii na fi tax a daje tey jii sopp ngeen ko sopp rek moo waral lii ba tax na nag fii nu taxaw nii dañu koy jox kàddu gi ndax kilifa yi taxaw alhamdulilah rabbil alamin booba ba léegi ñu may woo ci kii ngir rek ay yite yu nekk ci seen kanam ñu fas ko yéenee jox nag kàdd gi waaye nag sëñ Mbaye na leer ni man mi bokk ak yow Kébémer du ma jóg sa place benn yoon maag sëñ Mor Talla mii te man damaa naqari der ba mel ni mbuur ku mën a nekk man ku nekk man ngaa muñ xet gi lay na ma daal di lay wan ginnaaw loolu lépp nag sëñ bi boo taxawee ba di ko muñ alhamdulilah rabil alamina lépp sax mbaax la mbay joo daa mer wala mbay jaw damaa mere day man mosuma koo gis jamono ju nekk laay ñëw sa place sa place ak sama place su rek ñoo jàkkaarloo waaye la may def sa place du ma ko def ca place am loolu lépp nag dara waralu ko lu may sag nangu ndax kat mën ngaa demee ni noo xam naan maa la mag fuuf demee ni noo xam ne bu la neexoon danga naan ah doo sama moroom di doxale leneen te Kébémer nag noo fa doon doxee yi tamit alhamdulilah rabbil alamin kenn du ne lu tax waaye nag da ngaa nuur nemm ci xasida yi ànd ak sëñ mortaale mii sëñ mortaale mii jàngale katab alquran la daara la yor ca Kébémer di jàngale barki démb la mu ca def ab tari waaye fu muy jànge ci tund wii dalay woo jàpp sëñ góor a loom mii kii jiite daayira bii nga xam ne weer wu dee dikk nañ ci sa kër gii dañ naan déglu leen sëñ Mbay Jaw lu mu leen wax ngeen def loola bu ñu dikkee man mi yor kàddu gi yaa naan ma joxal diw mu jàng joxal diw mu jàng joxal diw mu daal jàng kon nag loolu bu amee noo ngi ànd sa bokk yëpp di leen ko dégtal waaye di la sant bu baax di la ñaanal yàlla bu baax sa defal dafa la jàmm defal la xéewal dafa la gudd fan gu ànd ak wér barki borom Touba xasida yi li nga ci yéene sa place bi li nga ci yéene lépp yàlla sunu borom def nga eggale ko yàlla sunu def nga eggale ko maa ngi yem foofu dama ni nag. boo taxawee bala ngaa jël kàddu ndax man fi mu nekk nii lu ma wax wax wax wax wax te néew ma asbil su tóor yi wala mu ne wala man maa yasrahu bu ma ñibbee saa yaram day xasan lu ma wax wax te néew ma asbil su tóor yi wala ma ne rabbi bi maa yasrahu wala yaa rabbana innal wara tadarawoo na leer ni bu subaa ku ma xulal yaa ma tooñ jàng lii dama cee nekk di nab rek waaye xasida sëñ Tuubaa yi laa xam alxuraan laa xam lu amit ñoo koy defal kon nag sëñ Mor sëñ Góora ala rasali ba

alhamdulilah rabbil alamin mbokk yi jërë ngeen jëf nu déglu nag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 ربي بما يسرع الإنسان قد فجاء بجاه أفضل من لله خلجا ربي بما يزرع الإنسان قد فجاء بجاه أفضل من لله خلجا حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتيا ملا محمد صلوات الله في أبد علي في بكل بكلا دو إله لسي عمد مواهبه للجملة الخلق ما يختار من برا ناجيت جل ومن وكرمني اعتماد وكل من لخنبرها رحمن هب للجميع خلق رامة من يخني عن شر من قرآن أخرى هد أمة المصطفى عن كل مفسدة والترى من خلق يا من جدهم بدا يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا عاديا ردا يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا هاديا ردا محوت ما خنا القلب من درر بجاه أفضل من لله خلجا bamba yow yaa di suukar waaju la mus ni ajana dollen ko musal dootu muslu bay nooraani bamba yow yaay di suukar ku mus ni àjjana dollen ku musal duutu muslu bay nooraay ni bamba yow waa ceeboo aju la bay ren su këram nga duñ xaaraay ni jërëjëf Seyxu Bamba yaa mata àndal jërëjëf Seyxu Bamba yaa mata àndal jërëjëf Seyxu Bamba yaa mata àndal def leen nii ñu màggal Sëriñ Tuuba jërëjëf Seyxu Bamba yaa ma tàndal ku laam dootul ñàkk bay ñeetaani jërëjëf say xubamba yaa ma ku laam dootul ñàkk bay ñeetaani laa ilaha illallah إلا لا يفعل لا إله إلا الله لا إله إلا لا يفعل لا إله يفعل إلا لا لا إله يفعل إلا الله lay faal lay lay faal illa lay faal lay lay faal illa lay faal lay lay faal illa lay faal lay faal soo guddee jaam ñi fandeey faal la ilaaha faal la ilaaha faal illa lay faal ilaaha illallaah faal may sa faal soo guddee jaam fande laa ilaaha faal laa ilaha faal illa lay faal ngeen jëf ñoo ngi jéglu bu baax li nu waajoon mooy mbooloo mi fi teew buñ fi teewee kuréel gi wër ñu ñu feeñal suñu yéene lu mu gàtt-gàtt waaye xam nañ ni ñoo fi woo nit ñi te yàlla xam na ni jàngkat yi fi ñëw sax am na ñoo xam ni jàngaguñu ndax sëñ Mortala mii ku nekk xam na ni mooy sama jëwriñ te ku nekk xam nañ dana feeñal yéeneem waaye lii dama ne woon naa ko def rek ngir bégale ko mbokk bi yi nga xam ne ñëw nañ fi ndax xam naa ni jataay bi yàgg na lool te seen yitte bari na am na ñoo xam ne ban ñëwee rek lañ wëggoon a wàññiku waaye bi mu leen waxee dañ ni comme nan toog xaar la ba keroog liggéey bi di noppi ñu ànd koog yow xam naa li fi jaar lépp buñ ci bëggee jaaraat dañuy jël temps waaye bu sëñ Mor Talla mii feeñalee yéeneem ci lu gàtt suñu oustaz sëñ Abdoulahat Jaw mii wax na ma ni am na kàddu yu ko waa dëkk bi yónnee mu war koo jottali su boobaa mu jottali ko rek su ko defee ñu mën di ñaanal ñu mën a ñaanalante jërë ngeen jëf sëñ Mortalla muy kàddu yu sant ak ngërëm ah bàyyi ko ci kilifa yu dëkk bi ñu jébbaloon ko sëriñ Abdou Diaw suñu kilifa mu jébbalaat ñu ko ngir ñu war ko jot mbooloo mi xëy na moom moo fi waroon teewaaye ngant moo tax Ah, mu jébbalaat ñu kàddu gi rek ngir ñu war ko jébbalaat mbooloo mi tañ lott ci torop waaye nag kàddu yi mi ngi tàmbalee ci sant ak gërëm ak ñaan ñu tàmbalee ko ci sëriñ Gora Diaw mi nga xamee ni mooy boroom dëkk bi waaye suñu bàjjen soxna Fat Njaay moom it kenn di mut mu des ba ci soxna Mati Njaay ñoom ñépp ñi ngi yëkkati ay kàddu yay sant ngërëm ak ñaan leen ko sëriñ Mbay Jaw mi nga xamee ni moo doon def lu sell lu baax lu màgg lii ndax sant yàlla sant seexu naa Seex Ahmadal Xadim te mooy sant yàlla suñ borom subhanahu wa teyit ah, inda sikrul saalihin tansilul rahma fépp foo nga xamee ne dañ fay fàttali ko gaa yu baax yi ak di leen tudd ak di leen sant yàlla suñ borom subhaanahu wa dafay wàcc yërmande te ci loolu la sëriñ bay sëriñ bay jaw delloo loolu moo tax cant yi ak ngërëm yi ak ñaan yi yépp dajoon daje daje na boo wàcc ci xale yi nga xamee ne ñoo doon waajal kado boobu doon ko jox sëriñ bay jaw yépp ñuy sant sant sëriñ bay jaw ak di ko ñaanal ba bis bi mu taxawal lim ci yéene fay gi mu ci bëgg lim ci yéene képp ku fi teew wala ku ko dégg walla nga amoon yéene teew yal na yàlla suñ borom subhanahu wa taala la ci yool bi ak mboole mbokk yi nga xamee ni jàpp nañ ci bis bi yépp ak ñi nga xamee ni woowoon na leen fi tàmbalee ko ci ah, miftaaxu nasri bu Ah, Touba Masar Diop waaye it suñ bokki daaru njaay yooyu nga xamee ni sëriñ Talla Mbeng moo leen jiite woon ah, di siyaar bu baax a baax sëriñ Mbaalo Njaay moom it wax dëgg yàlla gis nañ ko ab teewaayam di ko ñaanal jàmm xéewal ak tawfeex ak sutura ndax moom it oyofaay gi rek koo gis xam ne nitu yàlla suñu borom subhanahu wa la te loolu yombut tayit ñi ngi leen di sant ñoom ñoo ñi nga xamee ne ñoo fi ñoo fi teewoon ñi ngi leen sant di leen ñaanal di ñaan yàlla suñu boroom subhaanahu wa mi nga xamee ni li mu yor doyu ko dara jaamam yi doon ko tax a jóg li muy séddale yal na leen ci séddale ba kenn du leen ci ëppale ci barkeb xasida yi ñu doon jàng ñi ngi siyaarit ak di nuyu ak di sant mbokki jàngkat yi ndax kenn kon xam na ne wax ni mettee wax ci boppam dafa metti waxuma nag toog nit ñi wër la nga toog di jàng njàng mu metti moo nga xamee ni lan ci la xooloo ci nit xooloo ci ku lay fay xooloo ci dara yàlla suñ borom subhanahu wa taala rek tax nga di ko def ñoom it ñi ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaanal waaye it nag ñi ngi jëlaat cant ak ngërëm ak sant ak ñaan di ko jeglee laay mag ñi nga xamee ni ñi ngi ci dëkk bi te it bu sëriñ bay ma nee lii wala mu xam lii wala ñu ñun ñii ko teewe ñu xam lii wala ñu man lii ñoom ñoo ni ci nàmputal ko cant ci ñoom lay dellu ndax sëñ Tuubaa dafa am lu dafa am lu waxoon dafa masa woo mag ñi ba bañ ñëw mag ñi dafa leen dafa leen masa woo ban ñëw mu ni leen na ngeen fexe ba na ngeen doon seeni baay waaye bu leen doon di seeni baay na ngeen doon seeni baay waaye bu leen doon du seeni baay ñaar yooyu nag dañoo xaw a nuroo te bokkuñu wax leen ni leen xam ngeen loolu lan lan lay nuru ñu ne ko déedéet mu ni dafa am benn mag bu nekkoon ci benn dëkk mokkal alxuraan lool man ko lool bëgg ko lool fonk ko lool waaye mag mu yàlla dem yàlla def mu dem ba màggat mënatul dara mu rabbu ak tëgét mooy bant yooyu ñuy ràbb di ko teg di ko takk ci pujub ne wala ci gayetu ne bi ngir lan ah, di ca teg dara wala wax nañu sax mag ñi bu njëkk soow lañ ci daan wayal waaye moom bi mu ko rabbee kaamil alxuraan la ci teg mu tiim bopp bi ngir lan bu soxlaa jàng rek du woo kenn bu soxlaa jàng rek day ñoddi kaamil bi jàng bu noppee takkaat delloowaat fa mu nekkoon yàlla dogal nag mag moomu dem ba faatu ñi ko njëkk xam-xam ni mag mi am na doom waaye ñi ko mujj xam dañoo jàpp ni moom amul doom ñu waxtaan ñii ne am na doom ñi ne amul doom ñu ne ah kay am na doom ky waaye doom ji ne mbërum làmbu la mbërum làmb la ñu ni kon nañ dem ci arène yi wër ci arène yi wër dëkk bi ñu seet ko ndax dañ ko gisam déet bi demee ci arène yi wër dëkk bi ñu seet ko gis ko fekk mu summee ko bay ah, waajo bare ñu ne ko yow de sa baay dafa génn àdduna ñu bëgg ngay ñëw ñu ànd dem ci ñu ànd dem ci kër ga mu solaat mbubbam ànd ak ñoom dem ci kër ga ba mu àggee mu toog ca lalu baayam ba fa baayam toogoon bu solee mbubb ba mu jot bu solee aw dàll mu jot kon kooku dondu na baayam ndax toog na fa baayam toogoon te bu solee aw dàll bu solee dàll baayam dana ko jot bu solee mbubb baayam dana ko jot waaye nag doonut baayam doonut baayam ndax baayam ah, maanaam jàngkatu alxuraan la woon moom mbërum làmb la kon doonut baayam yàlla dogal kooka ah, lal ba mu toogoon kaamil bañ tegoon ngir mu tiim ah, baayam nga xamee bu soxlaa jàng rek day ñod di jàng kooku da doon fudd rek far loxo ba dal ci tigg ga kaamil ba daan daana tasaaroo ñu laaj ko ñu ñu jël ko ni ko lijjanti ko lijjantil kaamil bi waa ji nekk ci kaamil bi di lëx-lëxi rek munu caa fexe ba boole ñaari foo yu ànd munu caa fexe ba boole ñaari foo yu ànd kon kooka dafa dond baayam waaye dondul baayam waaye doonul baayam loola nag la sëñ bi doon doon bañ ci mag ñi loola taxoon mun leen na ngeen fexe ba doon seeni baay waaye bu leen doon du seeni baay bu leen doon du seeni baay kon nag lu mel nii ku ko bëgg da ngay aw fa nga xamee ni fa la mag ñi awoon te it mag ñi ci lii lii lañ ñu nàmpatal lii lañ ñu nàmpatal lii lañ xamoon ñoom jàng alquran jàng xasida sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala ñun nag war nañoo am sant ñu it ginnaaw ba ñu yàlla xiiree ci ci loolu kon ñi ngi suñ bayit moom it nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ndax gis naa bi mu wootee ñëpp wuy nañ kenn desut nee na gis na yéene yi gis na jëf yi gis na xol yi nee na it lépp mi ngi koy jël delloo ko ci yàlla suñ borom subhanahu wa yàlla suñ borom subhanahu wa taala neen moom yi nga xamee ne ku ko jox ku ko jox sa lépp mu tëyal la ko ba ëllëg fa ñuy fayee jëf bu la ko delloo du rus nee na foofu foofu la ko delloo ngir mu tëye ko ba bu ëllëgee buñ teewee ci kanamu yàlla suñ borom bu yàlla suñ borom fayee bu kenn du rus nee na ngi ñaanal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp maa ngi jéglu bu baax a baax ci kàddu yi xëy na lu ci dëng ci man la lu ci matutit ci man la waaye ñi ko doon jot li lu wax di yàlla seeni yéene seeni wax ju rafet weesu na li ma li ma doon wax xanaa man sama làmmiñ moo jubut sama xam-xam bëriwut waaye maa ngi jéglu ñëpp di ñaanal ñëpp di jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kon na ñëpp tàllal te wax amin te lépp maanaam kenn ko ne la nga bëgg nga fas ko ci ndax yàlla suñu borom day sédd day joxe rek te li muy joxe moom doy woo ko dara ñun ñi ñoo ko aajo woo waaye moom aajo woo ko aouzu billahi min asheytan rajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmi ddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina sirata mustaqim sirata allasina an'amta alayhim xayril mahdubi alayhim wala dalin laqad jaakum rasulu min anfusikum asisun alayhi ma anitum asisun alaykum bil muminina rahufun rahim fa in tawala fa qul hasbi allahu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsi asim laqad jaakum rasulu min anfusikum asisun alayhi ma anitum asisun alaykum bil muminina rahufun rahim fa in tawala fa qul hasbi allahu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsi asim laqad jaakum rasulu min anfusikum asisun alayhi ma anitum asisun alaykum bil muminina rahufun rahim fa in tawallaw faqul hasbiya allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu rabbul arsi asim bismillahi rahmani rahim alam nasrah lak sadrak wa wadahna anka wizrak allazi anqadha sahrak wa rafa'na lak zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faragta fansab ila rabbika farghab bismillahi rahmani rahim inna ansalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri laylatul qadri khayrun min alfi shahrin tanazzalu malaa'ikatu wa ruuhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya hatta matla'il fajri bismillahi rahmaani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yolad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmaani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yolad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmaani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yolad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmaani rahim qul auzu bi rabbil falaq min sharri ma xalaq wa min sharri xaasiqin isaa waqab wa min sharri nafasaati fil uqad wa min sharri hasidin isaa hasada bismillahi rahmani rahim qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas allahumma salli ala sayyidina muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wa afati wa taqdi lana biha jami'a ajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayhat wa tarfa'una biha indaka ahla darajat wa tuballighuna biha aqsal khayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat tawil lana umrana sahil lana badana wa hab lana rusda wa tawfiqa ya allah tawil lana umrana sahil lana badana wa hablana rasuluhu tawfiqa yàlla tawil lana umrana sahil lana badana wa hablana rasuluhu tawfiqa yàlla barke Sëñ Tuubaa barke Sëñ Tuubaa barke Sëñ Tuubaa muhammadun ana lana almarama khudna la salata wa salama هنا لوردا أخلاق